Palma akı, banana akı Yalnız yalla pole bal Nakcam yantakı, lu yalla sakı Yalla nanka purpi yalla defal Alright, lumana kitiyor mu? lu ma metti du ma neex. yërmande. lu ma metti du neex. askan baa ngi jooy. yërmande. ceeb diwlin gaz. yërmande. xoolal ma corona metti gu mu du yoon. yërmande. Mm. yërmande. yërmande. non mooy taal la yow da ngay MC MC li wax jaar na yow mais mu fi jaar yuuxu da xanaa da ngaa fàtte ne danoo wax. léegi yow gis nga yow. xaw ma looy mel ni sa kanam gi mel ni amul gëbu fanaan damaa bëgg nga rek yow yaa ngi bëgg a neexaan ah. te dinaa la utal autorisation nga dem dégg nga li ma la mel ni formation bu ñu fa teg nii fa laa la. a yaa fa génnee de. na loo xam ah, yaa fa génnee de. yaa fa génnee. ma ne gis daal xam nga lan la. yaa fa génnee def fa la bu ñu sonal bu ñu sonal ah. Hmm. ah yow la de yaa fa génnee daal man xalaat ndogu toog ndogu toog gis nga bu ñu yokkoon heure ba vingt et nga xam nit ñu dañu ndogu sax génn doxantu tuuti ñu ñu ñu deeseere seen li rees. mais ndogu toog ci biir kër ndogu toog. xam la mais fu ñu war naa dem hôpital xoolaat ko xool xam ne kan la te man fu mu toll nii yàqamti woon nga ñëw toog ba mu wax na sama xalaat bi ma am ci réew mi parce que boo seetloo gis nga weeru koor gii ajjuma gi natt julli rek ma métti man gis nga taal bu taw dàq nu ne nga koy ëppee jóob tëj nañu frontière yi tëj nañu jàngukaay bi élèves yi di jàngee. pour ñu toog seen kër bañ jàngoro di di gën a law. loolu lu la. waaw léegi gannaaw ba yooyu yëpp def nañ ko utaq nañu masque garder nañu distance bi. Euh, def nañ suñu euh, silence euh, balee rek balee rek ñoom da ngeen di saboté am benn problème def leen leen neex léegi yooyu yëpp di am ci réew léegi man dama gisoon bi ibbi jàq yi ibbi jumaa yi jàq bu nekk wala jumaa bu nekk ñu def fa 15 personnes parce que kaamil alxuraan bi lépp loo soxla suñu borom ñaan ko ci mi ngi ci léegi nga foog ni bu ñu defee lool ñu ñaan si réew bi mbax mi du fi jóge loolu nga wax dëgg la ndax fii nii kenn ku ne xam ne jullit ñaan mooy ngàndaayam waaw léegi bu ko defee nag ñun nan dellu ci ñaan hmm. waaye ci jàkka yi nag fukki nit ak ñaar bu ci imaam ma dollee juma da da ngay a am juma maa la ko wax waaye fii boo waxoon ne fukki nit ak ñaar duñ julli hmm. kenn ku ne day bëgg a dugg fukki nit ak juróom kee bu ñëwee lay dugg day dugg ci biir jàkka ji kan moo koy téye ah boo ko waxee mu xeex ak yow. loolu la nag. di buñ ko tegoon ci yoon. nu nga nga juboo ci lépp bu weer wi feneen ñu ànd ci lépp lu fenn ñu ànd ci. xam nga dana neex dana yomb nuy def loolu. lu leer nga waaye fii nag mënuñoo ànd ci dara looloo tax. c'est que Sénégal moo tëddee noonu. weer wi sax bu feeñee da ngay gis ñii la gis nañ ko ñii gis ñii la gisuñu ko inadmissible la nit mënta am loolu moo tax nag fu mu toll nii pour booy bàyyi leen ñuy wax ngeen dugg suñuy wax wax nu leen da ngeen di rap may leen ñu wax ci mbirum diine yow sa xol moo bon yow ba bu ñuy wax mbirum diine mbirum lislaam da ngay mel Bass Mbaye waxuma ak yow de nga ni unanimité lañu wax lan lañu wax unanimité mais unanimité waxuma unanimité la wax bàyyi ko unanimité inaa la rek ñoo bokk fi ñu yaa ngi dégg léegi mbir mi na demee noonu man nag damaa gisoon bàyyi kii ñu tëj jumaa yëpp jàkk yëpp man ci loolu laa d'accord de ñu safur laa ñu ibbi ko man ko ibbi nit ñi julli waxkat moom dana wax ba lambu taatal na ñuy wili sama wos ndax li nga yow booy wax nii ngay def a léegi da ngay bàyyi nii nu ne mën nga fenn da ngaa wóor du wax mën a am nit jara man man man man booy mën ngeen noo may mën ngeen noo léegi am na d'accord. xam nga xam nga lan la man bu man ñii da wax ak ñoom xale yi du ma seen morom. waaw man xam nga la la lan la lan laa d'accord. du ko tëj. yow Diop nar a am xam nga da ne xeetam duñ bokk am na ci dara mu mu doon loo xam ne ko ak dëngoo la wala wala yàlla bëgg ko. lu ñu rek yàlla bëgg na ci. te borom xam-xam yi nee nañ tëj. ñu tëj ñu tëj ba ba ba coono coono papa. ah yow papa yow moom ba bawoon nga ma de. waaye da nga rey kii bi. ci nuyu sama sama xarit bi Diop la tudd. ci loone na nga def papa mbaa yaa ngi ci jàmm na nga xéwali yaa ngi ci jàmm bu baax maa ngi leen dégg dégg ma de waaye ba ma déggee salaamaaleykum maa la ko wax anti défecté bi fu waay jóge na défecté wu maa ngi yaa ngi ci jàmm yow kay nam naa la laaj naka mu alhamdulilah salaamaaleykum laa dégg ñëw suba ba léegi. yow baax na yow. waaw sant wér alhamdulilah sant wér wér baal nañ leen yàlla yàlla boo si baax yow ay déwén bari na xool léegi laay waxtaan ak sama xarit bi léegi rek damay wax bay daane rek gis la ñuy ñëw la sama xarit la nuyu ko Diop la tudd Diop Diop mooy papa sant papa kii ku baax ku baax sama xarit hmm. man ak moom démb lan wallaay suba cere lan dëgg la ci la boole woon lanu ànd ca tool yi lanu ànd maa la ko wax ku baax maa moom maa ko luyee fii ah. pareen saay mu fay pareen saay du fay bu fayul man man kii ko loolu lu ci dara wax waaw dama koy présenté présentation day mat waaw maa ngi sant wér a wér alhamdulilah waaw waaw jaadu na wala gis nga ko te feebar bi toll na foo xamante ne. waaw c'est normal ñu tëj maa ko wax ak baar yi maa wax parce que saa déglu information lim di gën a di gën yokk kon c'est normal kon. wallaay wallaay wallaay gis nga moom nga ma fekk léegi maa la ko wax dafa romb lu dëgg la. laay moom laay wax ak moom léegi nii di ko wax ne jàkka yi dañ leen a war a tëj ah, moom dafa wax ne sax moom nan ko ubbi man ko nag dañoo war a ibbi jàkka yi. yaa ngi dégg ñu tëj jàkka yi mm-hmm. moom mën a leen ko ubbi gis nga ko moom daal ci yooyu ngeen fekk nii ñuy wax parce que bu fekk ne def tëjuñu ko léegi lim bi day gën a yokk léegi fe cas communation kii bi bi bi cas euh, communation bi tax feebar bi di gën a yokk waaw léegi boo ubbee waaw cas communautaire léegi day tax mbir mi di gën a kii moo tax ma ne ko léegi nañ ko tëj moom xam nga moom xelum dof la yor mu ne leen ko yóbbi loolu gis <laughs> noonu daal la demee waaw mais daal sant yàlla daal sant yàlla rek waaw alhamdulilah ah way ah en tout cas lu waay di wax na sàmm kàddoom de jóob xanaa jóobul déggu ma booy kabar xoolal booy kabar man du ma sama morom de yàlla na yàlla li ma la wax rek jërëjëf jërëjëf jërëjëf lii yàgg nga ko def du tay du tay yàlla na la yàlla suñu borom fay ah lépp loo ci def rek yàlla na ko yàlla suñu borom fay Diop da ngay xaar a waay jërëjëf jërëjëf papa jërëjëf. jàkkee yëpp lañ war a teg moom wax dëgg yàlla. parce que yëf yi mi ngi noonu léegi nag xaaral ñu utal la. xoolal fii na fi xam ba heure. bàyyi ma ñëw yegg ga rek ba beneen. waaw yow xoolal teraanga teraanga koy fay wuy ma ah, ñu defal ci ndogu ndogu ba ba xutu xata gi ma ga. ah mënoon ngaa toog de. mënoon ngaa toog de kii kii kii ah, Penda. ko sama gan gi. waaw loolu damay fay. ba bi say ñu wax la. yow eh, ko ma gunge ko dañ. ngay tàpp mel ni kuy rey yow ba. mu ne yaa mën a fen ba mel ni kii kii kii mënut a fen mu tijji fi ñàkk yi taxawaat fi tëj ko. jërëjëf jërëjëf. bu dee da ngaa foog tëdd bu mu sabar métier la dañ dañ dañ xam daal. yow. daal la defal la xaalis jarale ngay jaay sa mbokk. jarale li yaa toog fii ne nañ tëjji jaaxle léegi léegi jóg daan la nañ ko dañ koo war a tëj. kan moo xam kii ñëw di la jox nañ ko tëj. booy yow compo eh. jëlal ñu yóbbu baf mbaay tabama. nga toog eh, yow bul wax dara boobu ba léegi maa nga sutura nga ne da ngay di lu ne. Ah, léegi baa ngi ko ba xalal naa la ko poobar nag bu mokk dafa jeex. ngay ñàkk fay di bëri wax di ñàppeeku di sutura <laughs> yow.

non lii nenu ganaar bu góor la.